Saykouka jiite association bu tudd Sali Yawaar International affilié ci benn association bu tudd Hoodere Aynaaɓe te président Gonjol Ka jiite ko dañoo ñëwoon fii tey wallu ji waa Yaari Guy puisque jamono ju yàgg ñu ngi toog di dégg seen problème ak benn waay bu tudd Abdoulahat Mbàkke problème bi nag mooy seen suuf la Abdou Lahad Mbàkke nangu boole ci di dagg ay baaraamu seeni ay doom di ko yóbbu lu mu ciy def xamuñu lu mu koy doye ba pare nag di leen jaay doole ci état puisque dem na ba toll ci foo xamante ne buy gor àll bi wala buy ruuj ay gendarme ñoom ñoo koy wër muy ruuj dagg na fi taalibe mi dàgg nañ fi ay loxol suñu ay xale ñu porté ko plainte ñu war koo téye nanguwula dem wuy ji lu dul yóbbu ay mineur ñu téye mineur yooyu foofa ci palaasam te nag lii ñuy xeeb ni mën naa indi musiba boo xamante ne musiba bu rëy la puisque fii njaago la ñenn ñaa ngi jóge waalo ñenn ñaa ngi jóge jolof ñenn ñaa ngi jóge bawol man maa ngi jóge fii ba Thiès ñu ñëw fii rien que pour problème bi donc problème bi def ñoo ñor li ñuy wax nag dañoo gis ne état bi jàpp nañ ne problème bi ñorul état bi problème bi mooy dafa nangu suufa sàmm yi nekk fii ci biir commune njaago di ci def lu ko neex suuf soo xamante ne fii la ko fekk jaayuñu ko suuf si mayuñu ko suuf si amul lu mu def lu dul def ay borne lu dugg ci biir suuf soosu ñu téye ko te àggagu sax ci di ko béy kon kooku bu demoon bi di ko béy nan la problème bi di mel loolu la population bi wax ne loolu xalaatuñu mu fi am te buñ ko waxee bu amul lan mooy amee eh, joxe seen bakkan yi moom moo leen gënal fii nga xamante ne dañ fi teg ay ay sàmm yoo xamante ne dañoo yor seeni ay nag seeni ay béy seen ak lépp fan lañ koy dugal te ñun gis nañ président Bassirou Diomaye Faye dem ba Thiès di régler problème suuf dëkkam Ndengaleer gis nañ mu fay régler ay problème suuf biir dakaar gis nañ mu fay régler ay problème suuf mais comme jub jubal la ñu woote lan moo tax mënuñoo ñëw état bi mënta ñëw régler problème suufu euh, yaari guy bi lan la ñuy xaar ay bakkan rot fi nag kenn ku ne di ñëw di commentaire kenn du wax ne yëgul problème bi te amul lenn nag loo xamante ne duñ ko bañ ci problème bi maanaam dafa clôturer euh, euh, déeg yi yóbbaale sax ay kër maanaam kenn xalaatoo jël sa jur gi sax yóbbu ko ci déeg nga ne da koy nandal mais nan la ab nit mën a dëkk ci zone même bu doon ne dañ ko ko jox xanaa kon déeg bi dinañ ko génneel ay yoon mais joxuñu ko ko tey joxuñu ko ko suba même déeg bi da koy tere sàmm yi loolu jaaduwul te nag lu fi xew lu ne état bi moom mooy responsable lu fi mën a xew que problème yi ñu bëgg régler rek ñu problème yooyu que ñun ay simple sàmm lañ rek lu leen neex def ñu ku ñëw ku ne golo gu ñëw gu ne nangu suñu suuf di ko béy alors jàmm ne ñooy loolu lañ bañ tey dootuñu ko nangu tey dootuñu ko nangu ëllëg euh, gis nga loolu ñu fas yéenee def bu lii fajul lii ñu bëgg def mm-hmm. kenn ku ne foo mën a toll ci réew mi di nga xam lan mooy problème yi te di yëg ni ñu faje problème yi te nag addina du mus a yàgg be laat mbàkk mii ñuy wax nii béy fii su ñu koo yéene suñu bakkan yi jox moom moo ñu gënal jox ko suuf si mu koy béy wallaahi mbiyeenoon mbiyeenoon foofu suñu di ko ñaawlu fa ñaawlu yem donc Serigne Laat Mbàkke nag li ñu koy wax fi may terminer mooy moom en tant que kilifa dina ku bokk fi mu bokk su fekkoonte ne kat lii moo taxoon ñuy nekk ay nitu tarixa du nii la ñuy doxee ndax nag doxuñ ci loo xam ne mooy yoon doxuñ ci yërmande kon dañ koy ñaawlu di ko wax nag autorité bu nekk ci réew mais di ko wax tous les chefs religieux ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo fi toogal état te toogal fi li nga xamante ne mooy diine ji nañu xam ne Serigne Ndane Mbacke mu ngi toroxal nitu yaari guy mu ngi toroxal nitu njaago mu ngi toroxal ay jullit mu ngi toroxal ay catholique mu ngi nangu seen suum seeni i doom ñu leen di te boo yéemu yóbbu Fatick du ñooñu ñoo ko def ay mineur lañu rawale nañ ñeneen ñëpp jàpp nañ ñeneen def leen fa lépp kooku dañoo bëgg dossier boobu na ci autorité yi taxaw ñun nag suñu tëjee jaral nañ buñ ñu reyee ñu xam ne noonu mais dëgg ci dëgg la ñuy dox lu dul dëgg duñ ko nangu je vous remercie on jaaram asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tudd Baleka maa ngi ñëw ci ci Potital Jolof ak Hoodar Aynaabe di ànd ak suma délégation ku ci mel ne Adama Gañaada ak Ahmed Daouda Ka ak Sidi So ak Mboose Ka ak mère Fatmata Touba ñu ngi jógee fu ñu naan Daara Jolof li ñu fi indi tey nag lu dul muy problème bu am fii muy problème suuf diggante sàmmkat ak baykat